ngir gunge leen ci seen bëgg-bëgg digital store indi na leen ay xeetu smartphone ak i tablette sur Android 9 yi mu génne te xew ci jamono tablette Core te 4 smartphone Core X4 ak téléphone flottant Shark X3 di ay xeetu appareil yu yéeme te soppi doxalin yu dëgër te nangoo yàgg lool te li ci gën a doy waar ndox mënulu ko dara appareil yi ñuy ànd ak yéen fu ne boole ci lu ñu ànd ak alarme bu leen di aar Crosscall di kër gi liggéey moom dong moo nangoo garantir ay appareil am ci diiru ñetti at mën ngeen a jokkoo ak ñun ci suñuy boutique showroom avenue Bourguiba 33 825 73 00 wala ci Soumbédioune sur la corniche 33 823 77 87 Digital Store améliorez votre quotidien. Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, euh, Monsieur le ministre du Plan et de la coopération, Monsieur le ministre du Travail, Monsieur le DG du budget, chers collègues, Monsieur les hauts fonctionnaires, euh, je félicite d'abord le, le DG des impôts et domaines, Monsieur Mamboy Yao, euh, qui a fait un koy bàyyi Nous avons suivi, nous avons Je félicite aussi le DG des douanes, Diko Nouyou, di aussi euh, remercier le ministre des Finances di ko sant au passage remercier son excellence monsieur le président de la république mi nga xam ne da ko reconduire ci postam bi nga xam ne vraiment c'est une mérite di aussi euh, féliciter Le DG du budget, un homme compétent, assidu, très attentif, allah di ko ñaanal suñu borom defal ko jàmm waaye aussi di féliciter aussi le ministre du travail très courtois nga xam ne vraiment boobu ba tey mi ngi si suñu côté. au passage monsieur le ministre euh, may féliciter une dame qui est avec moi une dame de fer une dame vraiment. Euh, euh, très compétent aussi, Mme Gay Fatou Diane, qui fait un excellent travail au niveau de, des de, de ñu ngi koy Nous bu baax di ko encourager aussi. Euh, monsieur le Président de l'Assemblée nationale, papa ñun dañ lay ñaanal suñu borom defal la jàmm defal la sutura defal la teraanga nga yàgg lool suñu kanam ndax ñun xam nañ yow yaay kan ñun dañ lay ñaanal nga yàgg fi ñu tàll bu ñu la xamoon am na wax yow bëri ya nga xam ne kenn du ko fi wax saa ñu xëyee dañuy ñaan yàlla nga yàgg fi toog dañuy ñaanal parce que ku xamul ñun xam nañ te président xam na kon président Moustapha Niass dañ lay ñaanal euh, suñu borom def defal la gudd fan lool te wër euh, di féliciter aussi le DG de la DER sama collègue wax na ko léegi qui fait un excellent travail jeunes yi bëri sentir nañu ko fii ku ne DER travaillul DER a travaillé peut-être dafa am ña nga xam ne xëy na dañoo xamul fan la ñuy jaar mais buñ ko xamul il faut que ñu demander kon nag dañ koy félicité bu baax Pape Amadou Sarr euh, di di la souhaiter vraiment bon vent waaw euh, di ñëw aussi euh, di wax ne je dis aux Sénégalais que le budget de de cette année est bien réaliste.